ربك فترضى الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما الأرض ألم يجدك يتيما فآل وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم أه أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله maa ngi nuyu soppe yi nga xamante سيفو ñoom Asfiyahi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla defal leen jàmm ñaanal mboolem ñi nga xamante ne it tamit ñooy saytu liggéey bi ba mu agsi fi mu agsi waaye ñaanal kilifa gi nga xamante ne ginnaaw yàlla yàlla mu ngi jaarale xam-xam bi yépp ci moom di wax ne saar bi saar bu riche la ndax li koy li ko waral mooy mu fassiruna yi dañu dëppoo ci benn mbir ne dale ko ci wadduha jëm ba ci suuf lañu déggé ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba ayati di wàcc ci moom da nga daan dégg mu naan la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd motax ñu bëgg boy jàng wa duha ba naasi booy tëj sa kamil sar bo ci aksi rek nga wax la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd kon ay sar lañ yo xamantene yu yéme lañ ànd ak loolu yëpp yonnati bi salaay sallam comme ni ko haaj njaga waxee toog nañ ñeen fukki guddi yoo xamante ne wax yu wàccuwul ci moom waaye lan moo ko waral yéeféeru màkk yi ñoo def délégation ñoom ñu ne ñun ay ummi yu lañ te ñun nag jànguñu te nag balaa ngay song koo xamante ne dafa jàng faw nga am ay mbir yoo xamante ne da nga koy ngéejowoo pour mën koo daaneel léegi nag gars yi faw ñu jéem pexe dem euh, fi ñu tuddee Medina boobu mi ngi tudd Yathriba bañ demee euh, Medina ñu ngi fa fekk kàngam yi mooy yahud yi nga xamante ne ay kàngam lañ ay ponkal lañ bañ fa ñëwee dañ fa fekk euh, gars yi laaj leen ne leen euh, ñun de dafa am ku mel melokaanu sàngam di doomi sàngam waaye tamit dafa ñëw ne am na beneen yàlla bu wuuteeg ci suñu yàlla yi ñu bëggoon nag ngeen jàppale ñu ci uh-huh. xam nga loo xamante ne luy fay ay mbiram la parce que lëjal nañu sonal nañu uh-huh. mun ay tontu ko ne leen kooku de bu ngeen ko laajee ñetti question bu tontoo lépp duut yonent bu tontoo benn bàyyi ñaari duut yonent maam faaw mu tontu lu gën a bëri bàyyi li gën a néew maanaam mooy ñaar lay tontu bàyyi benn gi ah gars yi bañ leen bañ leen laajee ñu ne ko léegi lan mooy pexe ci question yi ñu war a laajte mu ne ko da ngeen koy laaj mbirum kahfi asxaabul kahfi léegi ànd ak loolu yëpp bañ ko laajee mbirum asxaabul kahfi ñu laaj ko tamit li jëm ci wàllu ruux xam nga bañ ci noppee it tamit ñu laaj ko mbirum zul qarnayni muy ñetti question yi bañ demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko mu toog gars yi def sol seen manto yi nga xamante ne tabarakallahu yéeféer yi ñoo ko daan sol mhm. waaye tamit jamono di dox ba jullit yi di ko sol nag kon mbir a ngi dox mhm. léegi ba ñëwee ba jub yonent bi ne ko mhm. tey rek nga xam ne ne léppaay dëgg xam nga léegoo léegi nit boo ko jekkoo wala tabaarakallaahu nga njortu ne li nga yor nii mën nga ko cee daaneel da ngay jàpp confiance ñoom ñu xam ne ne gars yi lañ leen jox ku dul ponkal doo ko tontu bañ demee ba jub yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ñun daal pour ñu dëggal sag yonent xam ne ne kat yow sa yàlla bi mooy yàllay ñëpp dañoo mm-hmm. bëggoon laaj la ñetti question ba ñu ci tontoo rek tabarakallahu ñu nam mm-hmm. yonent bi ne leen acca leen di déglu ñu ne ko dañu bëggoon nga wax ñu mbirum asxaabul kahfi ak fañ jaar mm-hmm. nga wax ñu tamit li jëm ci ruux bi ko ñetteel tamit nga wax ñu ci yi ni buur bu baax bu sell boobu ah yonent ya, bi sallallahu alayhi wasallam sallam ne leen dem leen ba suba moo gis nga borom xam-xam da nga war a maanu waaye mhm. neewul question fu la fekk rek nga ne xaaral nga tontu ko moo ci ci ci bêtise rek ngay dëkk mhm. nga léegi ñu dem ñëw ah ñu ne ko kat réponse bi leen jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kat est-ce que du ngeen demaat ba suba mu ñël ma tuuti mhm. ndax maa ngi xaarandi gars yi commencé nag bañ demee ba am fan rek seen xel commencé kay ji moom kay mu ngi doon woote fii xam ngeen ne fii ngeen di jóg ndàngam ak ndàngam di ŋàññu yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek jubal ca àll ya mhm. tàmbali yéeg ci montagne mhm. bu demee taxaw dem bay bëgg cëppeelu rek am kàddu gu ko wax ne ko yaa muhammad anta rasulallah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wàccaat mhm. mbir ma metti lool yàlla seetaan ko lu tolloog ñeent fukki fan kon nga gis ne ne yàlla ku am fulla la ndax say décision boo ko dee jël te boole woo ko ci say programme mhm. mu téye loxoom mhm. ah ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jaaxle moo xam ne ne kat ndawam bi jaaxle na te yàlla nag wax dëgg yàlla ku laal yonent bi laal ko mhm. ah ci la ko jibril dikkal ne ko nag sama borom nee na wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun ذلك غدا الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله والله منك صبرم نينا لغي دا ngay جيل ديسيجن تي دوكو تي بوله وايي تيم نينا بول جيلتي موك ديسيجن لودول با واخغا ان شاء الله لولو نك موي سبب مو سيتان لا با لولو خوي نك يونس بي صلى الله عليه وسلم ني دال ديكوي لاج نيكو لان موي ميروم اصحاب الكهف ينا انت بتنت لن انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى ني لاج كو تيميت نيكو ويسالونك عن الروح من يقول الروح من امر ربه ولا من امر ربي منكو ميروم روح لن بوغون nga wax ñu mune len kat man duma ci sore li jëm ci cadre roh dal koku mbiru yalla kon daanaka delo na lo xamantene mom moom mbiram sorew ci legi nak ñu laaj ko mbirum ashabul kahfi muy wa yasalunaka an dil qarnaini mun qul sa atlu alaykum minhu dhikra kon buur la woon bu bax waye ci teunk has njaga sama borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne wadduha ya la ngi giñ ci yor yor والليل إذا سجى أبوجدي نيوله بلندم كريس جاب تروازي دي ماتي جمكو من ما ودعك سبرم والله العظيم بنيولا وما ودعك سبرم فتولا وما ودعك سبرم دونكو حمانتين كل دمويلا ربك سبرم وما قال تبنيت لا وأبي الخلن ولا الآخرة أم نجانا ولا الآخرة mu ne li jëm ci mbirum allaaxira xayrun moo gën laka minal uulaa dund gu jege gii di àdduna mu ne nag wala sawfa yutika rabbuka fa tarda kal set dinañ la jox ba nga gërëm jox ba nga gërëm nag imma ñu defal la lu ñuy tuddee doylu wala ñu boole lak koo xamante ne maanaam dina la joxe ci si alalam kon suñu yaay Xadija moo tax doylu ku ko yàlla defal rek comme mu dul jeex la jël nga raw gàddu lii la yàlla defal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne alam yajidika xanaa fekku ñu la woon nga nekk yatiman di jirim fa awa ñu boole la ak tabarakallahu ki ñuy tuddee sa baytax boobu di abu talib nga xamante ne yàlla dogal mu am ci yow cofeel boo xamante ne daf la gë maanaam gëne la doomam yi sax yi mu jur ووجدك نفك الضالا غي كورير الشريعه دوني يونتي بدا فرير مانام غي كورير الشريعه فهدا يالا جندي لا تي ما غي مانا جندي غور يالا ووجدك عائلا نفك لا دون كو خامتيني كو نياك غا فاغنى نيومال بولا لك سيدتنا خديجه mune nak yàlla mu ngi koy fàttali nan ko nak fa amal yatima ndal jirim nag fala taqhar mu ko jànni mukk wa amma sa'ila manam ki nga xamantene way laaj la bu ñëw ci yow fala tanha bul ko gëdd bul ko gëdd yàlla subhanahu wa taala xolal la mu tejé aaya bi wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis xéwal bi la yàlla defal nag njaga ba nga mën a sol sa <laughs> euh, euh, euh, maanaam sa sa sa kii bi super sang bi <laughs> yàlla nee na nag boo toogee ci asfiya yi mhm. gërëm mooy ko yàlla waaye di gërëm téer bi bàyyi yàlla jaaduwul de alhamdulilah moo tax toujours ñuy bëgg ki xam dëgg buy tëj émission mu ne kat maa ngi gërëm yàlla mi nga xamante ne mhm. la mu mën ci man benn jaam fekk sew ko ci mhm. doore nag tudd sa wéy ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci sa jëmm ji mhm. lu ci lu am solo la mhm. kon may fàttali ñi nga xamante ne ñoo dëkkee di nekk ci waxukaay yi mhm. nañuy jiital yàlla ci lépp ndax tey fu mu ne koo fi mës a gërëm ku nekk boo ñëwaatee laaj ko mu ne kat saawaay léegi bu fi ñëwatee tëj leen wax leen new ma fi day ah. daw tëj tëj leen rëbb yi waaw moo tax gis nga yàlla kese ngay laaj mu xëy naan la laajaat ma kon bu ko defee loolu mooy Wadduha may dimbali nag ñi nga xamante ne ñoo koy jàng mooy boo ne wadduha riwaayatul xafs la boo ne wadduxee riwaayatul warsh la wallayli ida saje riwaayatul warsh la wallayli ida saja riwaayatul xafs la mu ne maa waddaaka rabbuka wa maa qala riwaayatul xafs la وما خلي وما قلي رواية الورشلة ولا الآخرة بو جانجي تمد ولا لا دو خراتو دفع ولا لا خير ratu ngay wax wala laaxiratu boo ne nag wala laaxiratu léegi nag da nga gis koo xamante ne naan wadduha wal layli ida saja ma wadda'aka rabb ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى رواية الحفص mais booy ñëw والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بك وما قل ولا خير أنت يانجس خير لك من الأولى ما شاء الله كن يوي متني متني باي خير